waaw Omar Saloum naa ma sant yàlla jur si yonent bi sant samay ñaari waajur maa ngi nuyu ñëpp baay di nuyu sama papa bu baax di nuyu sama yaay bu baax a baax a baax a baax di leen nuyu bu leen baax di nuyu sama mbokk yi lawbe maa leen nuyu bu baax di nuyu tamit waa Géejawaay di nuyu waa nootu guy jamaa du deeñaay maa ngi nuyu ñëpp cat ba cat waaw di wax nag am sama doom ndey la waaw ma àdduna fi moom loolu liggéey rek da ngay fayeeku xëy na moom moo ko fa xaar te dakaa liggéey loolu moo tax rek taa ñëw rek macha allah mottali quoi moom man loolu laa gis ndax xam naa ne moom lu nekk si moom ba tey waneegu ko ndax man dama kaa xam ko amaana na gars yi leen moo leen jaaxal si moom form bu mu yor moo leen def moo koy def kaa mais l'essentiel moom ku jàppanteen moom di nga xam ne kii baay xale bu ndaw la ba pare gëm boppam respecté lu muy def ba pare bëgg lu muy def. ba pare tamit leen rek mooy wax mooy difo bi mooy lenn mooy santooni jàppale bi moo des rek mais ku ko jàppale am champion bu mag a mag a mag a mag te koñ bi amaana xamuñu ko sax mais am na yeneen koñ yu mu doon nekk amaana dépassé na fu mu nekk nii sax ki barki Seydina Muhammad ndax parce que tamit dañoo xam lu nekk si moom mais waa koñ bi ñoo war a génn dooleel ko quoi ndax parce que tamit benn instant moom ci koñ bi lay solo lu mu am koñ bi la koy bokkal kon waa koñ bi dañoo war a génn solidarité jàppale ko ku si mel ni baaba jaa moom kenn demul mu des moom da koy soutenir du ko jàppale di ko dooleel ku si mel ni tamit Adou Ndour Adou Ndour moom amul fayam Adou Ndour moom dafa sonn si am di daj si moom ay coono yoo xamante ni amaana mooy loolu ku si mel ni xalifa tamit amul fayam ko waa ñii moom am géant na leen jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax ndax bu mu méttee dëgg ñoom la gis kon na leen jàpp bu baax baaba tamit dénk naa la am xam na xala la xamul dara léeg day def ay erreur mais yéen da ngeen koy comprendre chaque jour waaw ci ay bitis lay nekk nag day def lu ko saf mais nag yéen da ngeen koy comprendre la nga xam ne kii xala la ba pare xel bu bañ saa day tukki quoi loolu mënul ñaak mënul ñàkk quoi benn saa man ma koy ñaanal jàmm tamit di ko ñaanal yeneen combat yeneen ndami ay ndami ndami ndami ndam ndax parce que tamit mérito na ko ba pare tamit gëm na boppam quoi gëm sa bopp weesiwul nga simmee ko ah? fajar nga yeewu nga dem maa ngi dem entraînement ñëw contact bëri ba naaw kon moo tax moo Odof Ndiaye nee na ku liggéey rek fayeeku te ku muñ muñ loolu moo dogal nag combat bi démb gis nga métti métti na trop te mais bu mu ñëwee da kaa gérer yàlla may ko ndam te yàlla na ko yàlla na ko ndam di jig nag mu nekk tamit loo xamante ni te ibbi buntu wërsëgam quoi waaw mu jaaree fa tamit jot na nañu joxo si combat yi mag yi quoi franchement parler jot na quoi Oumar Saliou gars yi wax si. yow moom si làmb ji nga nekk macha allah te maîtriser nga làmb ji kon utal leen ko làmb joo xamante ni journée boo xamante ni moom dina si gis boppam quoi. moom moo nangul wutal journée. Oh, saa yi ngay ay combat yi neex. nangoo moom monté yàlla te am te te am am am am dafa nekk koo xamante ni làmb ñëpp ko xam maanaam amul ku dem ci làmb ji te xamoo am géant quoi kon nag ma yoon nag tamit bàyyi yow Oumar Sall da ngay monté ay journée yi neex journée yi neex yooyu ngay monté nag baay jox si am géant mu gis si boppam tamit wane boppam. waaw tamit yoon la quoi benn instant par yaa ngi ne monté ay combat yu baax kon defal loolu quoi benn instant ndax yooyu moom tamit borom baax la te dalaa bëggal boppam chaque jour day wax si yow wax ju rafet waaw kon nag comme mi ngi def noonu yow tamit soutenir ko quoi benn instant di ko jox journée yu baax yi muy wane boppam quoi na xala la quoi demagul fenn am 6 7 combats 6 victoires loolu dooy caaxaan quoi ndax 6 victoires palmarès bi rafet la moom palmarès am macha allah yàlla nag. waaw yàlla na continuer continuer ba mu nekk roi des arènes ndax mérito na ko xorom rafet na ba pare mun na nekkat ku ne waaw loolu nag bu da ko yàlla mayee tam benn saa da ngay gëm sa bopp rek en général lu ma lay gën a conseillé nga gën a gëm nga gën a jàpp nga xam ne am nekk sa ginnaaw am na ñu lay xam ne àdduna ba su nekkee gëm sa bopp mooy yët mooy pay soo gëmee sa bopp rek yàlla na la dimbali te bis ñu bëri fii fii lañ jaar quoi dañ leen teg loxo quoi kon yàgg-yàgg jàpp naa dinañ la mës sa teg loxo maa la koy ñaanal nag jàmm quoi waaw di béggee ñëpp nag di nuyu waa koñ bi ñëpp ñëpp ñëpp di la wax ne nag baay damay bëre la 20 ko quoi maat zoom zoom moom maa ngi koy maa ngi koy wax lu ma koy wax bëriwul zoom lu ma lay wax bëriwul yaa ngi nekk si rajo télé bi di wax rek man nga ne français laa man xam naa lu nekk si man lu nekk si man xam naa ko bis boobu nga gëma sa bopp rek ñu jëflante maat yow bu jëflantee du mat une minute maa la ko wax fii loolu moom maa la ko wax fii zoom préparé nga xam ne doomu gaynde bi mooy ñëw te doomu gaynde moom yaa ma gën a xam du jur muus kon noonu la demee nag kon yow kon nag bàyyi del zoom sa bopp rek yow di aj sa bopp amaana bu ñu si biir géew di nga xam lépp dëgg la di wax ñii namit bàyyi ñu may jàppale si combat bi tamit nañ si gaaw yaa ma gën a xam ku si mel na tamit bàyyi Seydou Sow waaw Seydou saw yow ndaanaan nga dëkk Tivaouane nekk koo xamante ni bàyyi ñaankat bu mag waaw nekk biir Tivaouane Seydou saw maa ngi lay woo si combat bu baax a baax a baax ku si mel ni Baye Assane maa ngi lay woo si combat bu baax a baax a baax ku si mel ni Baye Jibi Sow tamit maa ngi lay woo si combat bi bu baax a baax a baax a baax ku si mel ni Njaga si maa ngi lay woo si combat bi nga jàpp si ndax xam naa ne yow borom baax ku si mel ni Mbay waaw nekk nooto nekk jàmbaar ñaari mbay sama ñaari mbay yu baax yi dañoo dañuy liggéey dóor waar rek lañ xam maa leen di woo si combat ku si mel ni Ibou Sow fara maaren bi maa ngi koy woo si combat bi Ibou Sow moom kenn demul des mu des damay jàppale di ma dooleel di ma soutenir waaw ku si mel na tamit benn instant am kii àll si damay jàppale bu baax a baax a baax di ma dooleel waaw di woo ñoom booy ñaa ñoom booy ñaa mas maa marché nootoon nag man awma seen fay quoi di leen wax ne nag maa ngi ñëw mënumaa tudd marché bi yëpp mais bu ma tuddee waa Kaani Saraat waaw di tudd waa Patas di tudd tamit Baye waa Ñambi marché maa leen ñëpp ku si mel sama yaay tamit Yacine Ndiaye aw ma fayam damay may jàppale di ma jox añ di ma jox reer kooku aw ma fayam chaque jour bu ma ñëwee damay lekk ba suul dem ñibbi mais Yacine Ndiaye mel nee na tamit kenn du moom mu des mooy sunu yaay waaw moom mooy yaay am géant bëgg ñu trop yaatal ñu si koñ bi tamit benn instant ñun daal yàlla moo ñuy fay suñu xol quoi mais yàlla nañu yàlla fay suñu xol di wax nag gaa yëpp nañ si jàpp waaw di waax ñëpp ñu ma mënumaa lim ñëpp nag mais waa nootu guy jamaa sama fan si kërëb bi maa ngi lay woo si combat bi ngeen jàpp ku si mel ni Sidi maa lay woo si combat ku si mel ni Baysa ku si mel ni Keba waaw ku si mel ni tamit Jibi Baabu maa ngi lay woo si combat bu baax ku si mel ni Omar Baabu Omar Baabu ku si mel ni tamit Fallou Basante lay jaay lu mu jaayul baaxul Fallou Fallou Basante ku si mel Baal tamit waaw di si woo Bunaama tamit Bunaama maa la siy woo Bunaama boo xamante ni moom lu mu jaay lu baaxul waaw di jaay ay Basante yi rafet. maa ngi lay wax si combat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ku si mel tamit ndëri groupe bi waaw ñooñu maa leen woo Modou Fall koo xamante ni moom fu ma pikiroo mu naan fay doom maa ngi koy woo si combat bi bu baax a baax di woo waa du dee ñaay ñëpp ñëpp nag ku si mel nootu guy jamaa maa leen di woo bu baax waa waa sëgal maa leen di woo si combat bu baax a baax a baax waa Morona maa leen di woo si combat bi waa Dagga maa leen woo si combat bi bu baax a baax a di woo tamit benn sant waa Saaw waaw kuy jamaa ñëpp maa leen woo di woo sama waa koñ géejawaay géejawaay fi laa dëkk juddoo fi yaroo fi mu màggee fi maa ngi woo ñëpp waaw képp ku dëkk géejawaay maa ngi lay woo ci combat bi ku si mel ni tamit waa sanc bi ay see bu mag bi koo xamante ni ñun dañuy dañuy dee ndax ñoom fu ñu pikiroo ñun naan fay doom kon di si woo nag di si jiital suñu président naar maa ngi lay woo si combat bi suñu président tamit di tamit di wax tamit Abbas mu ñëw jàpp si combat bu baax Pell Biram yow mu monument nga si dëkk bi di jàppale jeunes yi di jàppale doole ay see bi Père Birame maa ngi lay woo Papa Maguette maa ngi lay woo si combat bu baax di woo tamit waaw ku lim juum quoi maa ngi woo sama waa ay see yëpp yëpp yëpp yëpp képp ku dëkk sanc bi rek maa ngi lay woo si combat bi képp dëkk mankoo maa ngi lay woo si combat bi képp ku dëkk Daaru maa ngi lay woo si combat bi Tànceeka moom kenn demul mu des Tànceeka woo naa la si combat bu baax sama papa Medoune Seye kooku defal na ma lu ne si àdduna Père Medoune waaw per Marine maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram fu mu nekk si Italie waaw yàlla di ko defal bàyyi lépp lu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla fay xorom ni ku baax di ma defal lu ne moo ma yar ba moom doy nii presque waaw Père Adouba Mara maa ngi lay woo si combat bi Adouba Adouba yow macha allah maa ngi lay woo si combat bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp nag waaw di jégalu ñëpp nag di ñaan yàlla tamit ñama gaa yëpp ñaanal waaw ñama gaa yëpp ñaanal waaw di ñëw tamit di woo sama waa fan si club bu baax a baax di gërëm nag waa koñ bi nag suñu waa koñ fii kenn demul ñu des waaw fada ma fi yaa bi yëpp maa leen di di wax booy tamit benn sant ñu ngi nii quoi waaw ma fi yaa yëpp maa leen di béggee booy yëpp yëpp yëpp maa leen di béggee ah. di leen wax nag Baye Oumar Saliou kontaan naa ah. gaa yaa ngi nii ma fi baa ngi nii waaw fii nag mooy moom yaa ma gën a xam fii moom lépp lépp la am looy wër looy wër rek am na si koñ bi quoi koñu artiste la quoi am na mbër am na am na waykat am na doxaankat ñëpp am na ci quoi fi moom fii la buujoo daal te xale suñu xale yi ñu ngi déclenché te boo yaa ngi fi ñoom duñu maye dara ku ñëw rek ñu doxaan la yaa ma gën a xam ñoom mayewuñ dara waaw noonu la demee nag di woo ay di bëgge gaa yëpp ay ñoom njaga ay ñoom laay ay ñoom amet gaa yi ñëpp ma ay ñoom Baba Dia macha allah masaw spécial daal ñii moom ñun suñu koñ moom macha allah jàmm rek a am su di woo tamit di di nuyu tamit beneen instant suñu seetlukaat yi waaw di bëggee ñëpp nag waaw ok merci kontaan naa daal